dix sumaire tey fi ñu koy dooree gàmbeeti rek gàmbeeti rek benn soxna soo xam ni doomam ñi ngi ko tëj instant bi ci kasowu Gàmbi déglu leen de doom ja dafa am ñu mu doon jàppanteel ca Gàmbi xale ba dafa luye néeg di sénégalais di dem di jaay ak a dikk ñëw na fekk ñu dajji néegam dëkkandoom bi ne ko ñoom diwa fi ñëwoon mu gis ñoom diw gaaye songoo xeexoo ñetti gambien la ak moom sénégalais ñu koy sot jot nañ koo jam sax juróom-ñaari jam-jam ci digg ginnaawam gi mu daanu ñu jël hôpital ñu jël ko yóbbu hôpital moom ak beneen gambien bi yëpp dañ leen jël yóbbu leen hôpital yeneen ñaari gambien yi daw ne mes waaye moo gambien ba ñu yóbboon ca hôpital ba kenn ka di gambien bi daa jot a faatu maanaam dee moom mi nga xam ne mooy sénégalais bi nag yàlla dogal na ni bakkanam rëcc na waaye ba mu wéree nag dañ koo jàpp ne ko ràpp ca kaso ba ne ko nag yow lañ gis ñeneen ña daw nañ te bakkan rot na ci ñu àtte ko tëj ko fukki at ak benn ah ñu defati appel ñu ne xaw ma tëjati nañ ko fukki at ak juróom mbir mi daal kéemtaan goo xam ne làqu ca ginnaaw yaay ji nag tiit na yaakaar na ne doomam ji est-ce que duñ ko boole ca ña ñuy rey ca Gàmbi ma ngay woo kilifa yi yaay jàngee ak foofa na.
waaw li nekkoon sans problème daal damaa jaaxle ndax sama doom dañ ko arrêté woon Gàmbi bi bi ci arrêté bi nag li ko li ko waral xaalisam lañ jëloon bi ñu ko jëlee léegi ñoom ñett lañu ñu ko doon sot si kaw bi ñu ko sotee nag ñaar ñi daw nañu rëcc dem moom tëdd na hôpital vert bi mu tëddee hôpital vert bi ñu ko fajee ba mu génn ñu laaj kan nga fi xam ak foo dëkk mu ne leen Sénégal laa dëkk léegi ci kaw noonu ñoom ñaar am na kenn ku si dee ñaar ñi nag rëcc nañu bi loolu amee ñu téye ko téye 2001 lañ ko téye woon ba tey bi ñu ko àttee nag ñu léegi ñu wax ko ne ko léegi da nga fay tëddaat fukki at ak juróom waaw te léegi ma sonn te moom reyul ndax moom moom lañ waroon rey ndax jam nañ ko juróom ñaari jam-jam ndax loolu sa avocat bi si boppam moom moo ma ko wax ma soog a seet sama ginnaaw doom fekk muy dëgg ma gis si juróom ñaari jam-jam yi mu wax ma gis ko ci xam ne kon li mu wax dëgg la ndax moom reyul reyaanul avocat bi ma jëloon nag pour gàmm bi moom moo ko signé loo xam ne xamu ko loolu moom moo tax ñu tëral ko peine bi. waaw waaye moom reyul.
léegi bu ñëwaatee ci histoire bi moom moom moo doon xeex wala moom nañ dogaale muy xeex ak.
kooku dafa jëloon xaalisam.
kan moo jëloon xaalisam.
gambien bi moo jëloon xaalisam.
ci lan nan la demee woon ba ba gambien bi jël xaalisam.
ci nan la demee woon ba gambien bi jël xaalisam. dafa demoon luyee fee Serekunda. benn néeg su xëyee dem liggéeyi su ñëwee ñëw bi mu ñëwee léegi si la fekk ñu daaj néeg bi jël xaalisam. bi ñu ko jëlee mu laaj maire bi sa kër ga maire bi na ko xale bu góor bi tudd diw de moom laa fi gisoon moo fi duggoon sa néeg mu am ñaari fan gisaatu ko ci kër gi keroog bi mu ko bi mu taseeg moom ci booru école bi nee na mu laaj ko ne ko sama xaalis yaa ko jël mu ne ko jëluma ko mu ne ko yow yaa ko jël ndax maire maire bi gis na la nee na léegi si la ko saaga mu ne ko bul ma saagaat mu sa doom ji ci na ko gambien bi saaga waaw gambien bi saaga ko mu ne ko bul ma saagaati mu saaga ko mu tëb dóor ko fekk gambien bi ànd naa ñetti moroomam si kaw loolu si lañ si lañ koy sot bi ñu koy sot nag léegi ci mu xam nga mu nekk xeex xeex moom bu ñëwee rek léegi ñoom génne nañ seen paaka ñuy xeex ci kaw ci bi loolu amee si la si la jamante bi am moom fe yàlla dogal ñu jam ko ñaar ñu daw rëcc bi police ñëwee ñu jël leen ñu yóbbu leen hôpital bi ñu leen jëlee hôpital moom dafa xixi rek ci kaw lal bi xam ne mi ngi hôpital kenn ki moom sowewul moom mu sowe mooy ci ñi ñi nga doon xam ñoo doon xeex ak moom daal waaw kenn ki desee ñàkk bakkanam waaw waaw loolu la kenn waaw ci xeex bi dafa am ku si ñàkk bakkanam waaye ñaar ñi daw moom gisuñu leen ñooñu gambiyee la ñu bakkanam moom moo doon xeex ak sa doom bi tam dafa bokk ci ñu doon sot sa doom waaw dafa bokk ci ñu doon sot sama doom bi kon daal ci xeex bi ci xeex bi daal si la bakkan tëdd ci la bakkanam waaw waaw si la bakkanam tëdd waaye ba tey ñoom ñett ñoo ko doon sot kenn ki moom moo si moo si gaañu ñaan ci des daw dem ñu ne nag léegi ñoom njëkkam gisuñu ko te moom la ñu gis te moom Sénégal la dëkk kon moom la yoon def moom moom la ñuy téye bi ñu ko téyee téye nañu ko fukki at soog ko àtte bi ñu ko àttee léegi ci lañ ko tëralaat fukki at ak juróom àtte bi tamit ci kaw avocat bi moo ko nax moo ko signalé loo xam ne xamu ko bi ñu demee tribunal ndax man dama daan dem tribunal di fa dem di ko fekkee ji toujours bu ñuy àtte. léegi bi ñu ko àttee nag si la avocat yi jóg na ko léegi nañ la àttewaat ñaanalaat ñaanaatal appel ñu àtte la ndax àtte bi teguwul ci yoon. pëlëkëlër bi na koy ñoo ngi lay enquête boobu ba tey amuñ fu leer lan moo tax tey lii. sa avocat wax ko mu ne ko sama avocat moo ma signé loo xam ne xaw ma ko léegi nag may woote wàllu bëgg képp ku ma si mënti dimbale te yàlla tax ndax sonn naa nan la tudd moom.
mbay bee la tudd mbay bee la tudd lan la doon liggéey Gambie.
moom da bi mu demee daf doon jaay maçon la woon fii waaye bi mu demee daf doon jaay ay daal la doon jëndaat di ko jaayaat ci marché bi waaw moom loolu la ci fa boppam doon- moom moo la wax ne ne que ne avocat bi moom moo ko signé loolu mu xam.
waaw loolu la ma wax moom moom avocat bi ma ko signaloo même tribunal tamit euh, procureur bi mu ko laataa tëral daf koo wax ne ko ne yow léegi ndax li sa avocat wax yaa ko wax mun na ko wax ndax fekk avocat bi da ko fekk ci biir na ko yow suñ la àttee bu subaa rek la sa dernier la àtte dañ lay bàyyi suñu la bàyyee bu- léegi nag yow da ngay signé na affaire bi xeex rek la woon loolu la ko signaloo pare nag moom mu jëlaat beneen bigam bind ne moom mbay nee na moo rey xale bi léegi nag xam nga mbay li ko avocat bi wax loolu lay jàpp bi mu demee léegi nag procureur bi xool liir ko na ko yow ndax li sa avocat wax yaa ko wax mbay tamit na ko waaw ndax xam nga defe na ne moom li ko avocat bi wax Déggoo loolu naa rek ko moom la avocat wax bi.
déggoo nañu Mhm.
léegi nag procureur bi na ko yow lu tax ñu at yëpp ñu di la enquête te ñun duñu tëj mu- nit mukk te amuñu témoin même ñoom wax nañ ma ko dañ ne ñoom ku ñuy tëj rek dañuy am ci moom témoin amuñu témoin te moom moo waroon a dee kon buñ ko attee dañ koy bàyyi yow nga dem ba si biir ne kon yow léegi yaa ko yaa rey xale mu ne leen déedéet waxuma loolu léegi nag avocat yi foofu yëpp jóg ba ki am na ku ñuy wax Camara moom moo njëkk a jóg ne atte bi jaarul ci yoon nañ ko attewaat waaw loolu la ma sonal léegi moom sonal léegi si dañ nag.
ko ne àtt nañ ko ne ko ñaata at.
ne ko léegi da ngay tëddaat fukki at ak juróom. mu ne Bokkut ak fukki at yi waaw nga- waaw léegi fukki at yi mu tëddoon ñu ne ko moom du si bokk fi ñu àttee rek foofu foofu la lay peenam di démarrer.
commencé. di com waa di commencé ma laaj ko mu ne ma ñoom nee li mooy seen loi.
loolu mooy seen waaw mun nañu dafa léegi bokk loolu ci- mooy dafa seen bokk loi.
ci ñi nga xam te ne nii dañ leen boole ci exécution yi nu ñu war a peine de mort yi wala.
déedéet xam nga bokku si waaye dara def si wóorul.
Mhm.
ndax man Dangay yëglu rek.
waaw dama yëglu. ndax man damaa témoye toog nii am ku ñëw dénk ma bagaasam. dem da- daal dem bi mu demee si biir rimaay bi mu demee ne tuuti la dawaat génn ñëw di yuuxu ma ne ko sama doom lan la ma ne samay ñeenti moroom. ñu ne ko lan la mu ne sama mag laa doon seet si waaye nee nañ dee na bañ suul ko. te ma ne ko kooku fan la dëkk mu ne ma Sénégal la dëkk te ñun dañoo ñëwoon fii di fi jaay si rek. waaye sama mag doon xeex ñu téye ko fii loola war a xam ne kon man yëgoon naa ne yaa jàmme bi muy rey booba du tey yàgg na. xale bi ma ne ko foo foo dëkk mu ne Sénégal laa dëkk fekk magam la doon seeti fekk na magam dee ba ñu suul ko ba pare. ah léegi nag loolu moo tax may daw di woote wàllu ndax loolu dara wóor si ndegam awkaam nax na ko ba wax ko loolu xaw ma ëllëg yaa jàmme naka lay tëralewaate wala mu ne kii kon ndegam yàgg na fi ci at yi naa ko si boolewaat. moo tax ma sonn trop bëgg ku ma si dimbale. te yàlla rek kon tax.
daal da nga bëgg autorité yi jàppale la.
waaw ñu jàppale ma. loolu daal laa bëgg ñu jàppale ma ngir yàlla ba sama doom génn. ndax moom rek laa am te sonn naa te avocat moo ko ndax moom bañ tëj lu ko. waaw ndax dem naa fa ñetti yoon saa ñu koy siise dañ may wax fii ma jóge Touba dem fa. waaye heure bu ma demee tamit suñuy àtte tamit dañuy wax ne ñoom amaguñu témoin kon témoin boobu amaguñu ko ba tey ni ñu ko mën a naxe ba tëj ko rek nii lañ ko mën a naxe. waaye amaguñu benn témoin te moom biñ ko jëmee tëdd na hôpital vert. dañ ko laaj nag foo dëkk bi mu tanee ñu ne ko ñu ne mu ne leen Sénégal kan nga fi xam mun a xaw ma fi kenn loolu moo waral ñoom ñu yóbbu ko te ba pare ñaar ñi ci bokkoon daw ñoom jëluñu euh, feetuñu ko waruñu ko ba gis ko ñu ne njëgam gisuñ ñaar ñu daw nag te kenn dee na ci xeex bi loolu moo tax moom ñu téye ñu téye ko.
waaw ñu téye ko waaw te sonn naa si trop mu bëgg daal ku ma si jàppale dimbale ba sama doom génn yow mii mu àndal sa sa sa waaw rak.
sama sama magu yaay la. waaw vraiment ñun daal ñu ngi ñaan dimbal ku ñu ku ñu dimbali parce que tës moom franchement bañ fi dalee dégg émission yi ba léegi ku fi ñëw sa aaji dina faju. boobaak léegi lekkul naanu ba dara xewul ci affaire rey lekkul naanu nelawul. ñu daal di ñëwaat déggaat affaire rey yi moo tax mu tiit te moom mooy taawam bu góor moom la yaakaar. léegi daal nous lançons un appel à tous les autorités du Sénégal. ñu jàppale ñu ci ñu ngi leen ngir yàlla mbay bee la tudd pour ñu bañ ko rey. ñu fexe daal ñu ci dimbalee def ci ay jéego ñu xool ndax peine bi daal metti na daal parce que tëdd na 11 ans déjà war na dolliwaat 15 ans dafa metti daal ñu daal ku ñu ci dimbali lañ bëgg parce que moom rek la yaakaar mooy taawam bu góor ñu ngi leen remercier bu baax a baax.
d'accord jërëjëf.